السلام السلام عليكم honorable salawi o salmini dental ngal ɗo fof suñu teew fii tey moyo argol muɗum ɗo hannde yëgaluñ leen ko moyo mo haalanani onon ɗum moo tax ñu ñëwee ni ñu ñëwee moyo ko ɗum addi mbo arduna ɓe min garduna min gardini ɗo wax wande buga nañoo egg fu nekk ci réew mi mbo minen faalno yottaade kala ɗo e nder leydi pour waxtaan ak yéen yokkante xel ak yéen filmin kalda e mooɗon pour onon kala mballol minen heen hakkillaaji da bari doole moyo onon onon jogii doole mawɗe da ngeen am baat ci réew mi onon jogii kadi konngol e nder leydi moom réew mi ko onon ngoodi leydi ndi yéena moom alal réew mi ko onon ngoodi jawdi leydi ndi wande seen kër yaa ngi ci ñàkk ɗum woni galleji mon ɗi kadi ɗinin e basal seen dëkk yaa ngi dellu ɗum woni kadi ce'e mon ɗe ɗinin jara ɓaawo lu ko waral koyo ko addi ɗum noon moo waral waxtaan ko ɗum addi haalaka ɗo hannde élection jotagul mo élection o yoni fayda wane léegi député yi waxtaan nañ ɓe ɗuɗɗo e élection o adana suudu dibiɗeɗo ɓe kaalino alal bi nga xam ne moom la ñoo dénk si président bi ngeen a tànn ɗum woni jawdi ndini ɓe gokkata président on ɗi e loolu nekk na loi ɗum woni hannde e loi hen ɗon leydi he alal ji ñaata la ɗum woni kales o fof ko jeelu 23 billion dollars ko ɗum woni million ji nogas e billion bu nekk mooy 1000 million ɗum woni million ka billion kala mo jiiɗa ko ɗum woni million ji wulure ko ɗum wattita woni billion mo mel ni 23000 million moom la ñu dénk si président bi ngeen a tànn si. ɗum wayino ko million ji million ji temed ɗiɗi e capanta euh, million ji temed ɗiɗi e nogas e tati ɗum woni ko okka yimɓe ɓe ko ñaar fukki junne million ak ñetti junne million ɗum woni million ji euh, guluje temed ɗiɗi e tati gokka ko yimɓe leydi ɓe léegi alal boobu ɗum woni ndin jawdi ko buga taxaw pour nekk président You want to call out that you want daf leen war a wax su nekkee président naka laa fexe xaalis boobu dellusiwaat ci seen kër yi dellusiwaat ci seen dëkk yi pour génne fi coon. oni foti onon haalande on haales kadi ko hono o foti mbo artirande moɗon e leydi e fiisu joomum wawi okkama leydi ndi ha kuy ut place bi te waxuloo loolu kala ɗaɓɓo place o wawani onon haalande on haales waxuloo nit ñi dara o haalanani onon hay hunde ñun ñu ne kanko wiyo juróom téeméeri junne xaleel ɗum woni fukki at ak ñaar yu nekk ñooy génn ci seen school yi uti liggéey te liggéey amul ɗum woni ɗin million ji nogase tati gokketeeɗi ɗi kadi sukaaɓe ɗinin ɗo ɓe ɗaɓa golle kono golle ngalaa li tax liggéey amul mboyo ko additaki haa liggéey ngalaa juróom fukki at ak juróomeel doxalin bi fi nekk baaxul ɗum woni duuɓi duuɓi capanɗe jowi e jeego gonɗi ɗo ɗi piw leydi ndi no maɓirteni woni moƴƴaani moo tax ñu ne léegi foog ñu génne wécci doxalin boobu si doxalin bu bees système change moyo ko ɗum ardi ko maaɓe ceeñan ɗum eh, noy no ɓe naɓirta leydi ndi ni ɓe ngadda naɓirgol konngol heen loolu ngeen déglu bu baax ban façon geen déglu bu baax ban façon yi doxalin ñu ne jigéen yi suñu liggéeye ci naako yi am tamaate dafa dem ba yàqu ci seen loxo ndek amuñ fuñ ko jaay ɗon kettoɗon kadi ngol ceengo ko hollon wontata rewɓe ɗinin liggoto gese ɗo toro gaadiŋaaji mumen to ɓe ngawa tomateji ɗi ɗin tomateji ɗinin jakko e juuɗe mumen doxalin bu bees bi ñu ne su fekkee ne jigéen yi bay nañ tomate ci seen naako yi dinañ am compagnie boo xam ne dina dem ba ci naako bi jënd tomate gi jigéen yi duñ sonnaat yóbbu ko ëlbati ko def ko tomate loxati factory taxaw ci dëkk bi suñ doomi réew mi mun woni yo on systéme o o systéme mo compagnie remoɓe to mumen to o soodat maɓɓe ɓe ngara ɓe ɗumen to compagnie ji mumen to ɓe mbaɗa ɗum tamate logoti 2020 alal bi nga xam ne moom la ñu jëlee Gambie dem jëndi tamate lokati ci àddina bi tere nañ ci 83 millions juróom-ñetti fukki million ak ñett ɗum woni 2020 hitande yewtude ɗon nde tan tan tan tan haalis moɓe gitti ɓe coodo e tamata no ɗon leydi to ɗini yaha e million ji ko yahata jeetati e tati société diwlin bi nga xam ne daf day nelaw nga xam ne dañ ko jëlee bitim réew isi ci réew mi ñu ngi ci fere woon one point two billion benn junne ak ñaar téeméeri million si a laari tan kadi diwlin ji ɗiɗi ndefeten gaadi kadi ɓeyɗi gitti ɗumen ɗo to leyɗele to ɗum kadi inin jara haa ko yaaɗa 1.5 million dollars 1.2 ok 1.2 billion dollars ɗum woni million ji million goto e eh, guluje temed ɗiɗi dollars mu mel ni benn junni million ñaar téeméeri million ñu ngi ko fere ci diwlin buy nelaw te ñun mun nañoo jël suñ gerte gi yóbbu ko ci factory olbati ko mu nekk diwlin suñ doomi réew mi di liggéey xaalis boobu dem bitim réew toog ci suñu koom-koomi réew mi di suqali suñu koom-koomi réew mi bara en mbawi ƴettude on haalen kadi ƴetten kertanede nde ndemɗen ɗe ɓe mbaɗa ɗumen transport to diwlin e ɗin factory ji kadi ko ɓiɓɓe leydi ɓen liggoronen heen fiiɓe mbawa heɓde golle fi ɓeydana ɗumen kadi hono ɓe mbawata heɓirde haalesta ɓe mbawa wadde nafde goɗɗum to leyɗele janano ndaxte li ñu def ci xel juróom fukki at juróom benn ñi nga xam ne ñoo yore réew mi mooy ne nguur warut a am arankees boo xam ne dina samp ay factory jënd saxaari nappukaay xaw ma fan la njëlee xam-xam boobu so laaɗi hen e ɗi duuɓi capanɗe joyi e jeego fof go laamu ɗum ɗini foti jogaade arankes mo nganndiranta tan ɓe mbaawata ƴettude kaales ɓe cooda ɗi ndemanteeri remooɓe kadi fuy ɓe mbaawa wallitaade koye mumen heen moo ta Gambia dellu gannaaw moo tax Afrique dellu gannaaw ko ɗum tagi Gambia kadi yaari ɓaawo ñun su ñu yore réew mi alal boobu ñu wax ñaar fukki junne million dinañ ca jël ci central bank ñu ubbi bunte boo xam ne ñu ngi ko ooyee sovereign wealth investment fo xaalis boobu dinañ ko jël sampee factory jënd saxaari nappukaay def ci suñu géej gi isi jën yi ngeen mun a lekk jën li ci des ñu jaay bitim réew muy saxaari si bitim réew ci réew mi ñu jëlaat loolu jëndaat saxaari nappukaay juróom fukki ak juróom benn su fekkee ne nii la réew mi doon joxe lu tax ñu bàyyi beneen réew ñu ñëw ci suñu géej gi di fi war a napp di yóbbu di jëriñu ñun ñu dellu gannaaw. ok on wii on haala kadi so kayanti kankoti woni okkama laamuɗum on on haala sen ɓe ƴeftat hen ɓe ɓe darna ko wiyete coopérative bank on coopérative bank ɓe guitta ɗum kadi ɓe gokka hen sovereign investment sovereign investment fund ok sovereign wealth investment fund wala mu dina nekk xaalis boo xam ne dinañ ko jëlee ci xaalis réew mi ñu def ko fa pour nga mën a dugal xaalis boobu ci luy juraat alal ɗum woni mi ƴettata on haales leydi kadi ɓe nattina ɗum e nder leydi e fi wawa jibinande yimɓe kadi haales goɗɗo moo tax ñu suñ jotoon réew mi dinañ samp factory nga xam ne mooy tax ndaw yi ngeen mun a am liggéey wiya ɗum woni ko en sike ɓi leydi ndi hen kadi ɓe darnat ɗo factory ji ganduɗanta sukaɓe mbawat hebde hen golle wane nag dañ bugge dàqa ndóol ñàkk ci saasi dañ bugg a dàqa ñàkk ci saas mane ɓenin ɓaala a riwde baasal e nder leydi he buguñoo xaar ba samp factory mboya ɗum woni ɓe paalaka fada haa so ɗin factory ji ɗi ndariima han mooy alal bi nekk ci kees gi soo utee ID card dugal nga fa xaalis soo jëndee dara ci bitik dugal nga fa xaalis ndax sukur ndax guru loo mun a jënd ci bitik xamal ne kii isi marchandise bi jaaroon na custom bam jaaree custom fay na juuti yi payna taxe wano soni jaay marchandise bi lamu fey ci juuti lamu fey ci tag daf ko tegaa ti njegi marchandise bi jaay ko li ɗum woni moyo kala ko mbawɗa wadde hannde siko aydi kaɗɗa koyɗa a nattini haales siko goɗɗum coɗɗa to fiɗi to woni ko sonol kala ko mbawɗa sodde toon han a nattini haales e nder leydi he bonna ko to jende marchandise hamana dugonge haalis si kees he ɗum woni wattu kala coɗɗa hunde e nder marché to ngannda a nattini goɗɗum to kees leydi to ñu ne alali réew mi yéen a ko moom. ɗum woni jawdi leydi ndi ko onon ngoodi ɗum moo tax dafa war a del siwaat ci yéen bu dimbale ɗum woni kadi il foti artude e moɗon pour wawa onon walitaade moo tax dina ñu suñ jëlee réew mi ci saasi dinañu registré mboolem xale bu wàcce school jéem a seet ndax am nga métier soo amul métier dinañ jël benn at boo xam ne bii dinañ la jàngal métier ɗum woni moyo kay si woni ƴetti leydi ndi han ɓe sukaɓe jippiɓe school ɓe fof ɓe mbaɗa ɗumen régista si woni jommum ɗi jogii mecce han si woni jommum kala ala mecce han ɓe mbawma ɗaɓɓande mecce ɗo eɓe darnude factory ji maɓɓe ɗi hen suka defe so pare di nga dem ci banque boo xam ne ñu ngi ko oye coopérative banque pour dàqandoor si woni kadi ɓen ɓen sukaɓe ɓe nattini e mecce ɓe fof si woni ha paari han kadi ɓe naɓat ɗumen to coopérative banque to on mo way ƴettude hen kadi loon ɗum woni ñawande ko defé projet bo buge dohal dina la jo haalis nga dohal ko nga feyat te interest do ko fay du woni kadi sa ƴetti don haalis kala ko paalɗa gollirde on haalis tan aɗa way dum gollirde te tanon hay interest a tegata hen so nekke gooro yangi am atelier nga nekke jigéen yangi am atelier xej na ñawla ak lu mu na doon defar sabu, di nga mun dem ci bank bi nga jël xaalis liggéey Delo ke doo fay benn interest si a e woni gorko aɗa jogii atale si a woni debbo aɗa jogii atale walla kala ko mbowɗa wonde siko debbo gonɗa siko sabunde pawnatoran aɗa wawi jettede loan du woni nyamane to mu en to dum be wiyta cooperative banko ngadda tawa yobata hen hay hunde ko tegi hen ta wona ko jettuda ko so buge topato ay ganar ak lu muna don nga nek ko xamne ki soxla nga engrais jiw yange ngee wala soxla ngeen ci naako boo xool ak lu mun a doon pour naa koy mun a dox loo leen soxla ci projet di nga mun a dem ci banque bi ñu jox la nga liggéey nga delluwaat interest bi sa bopp ɗum woni sarde kadi tawi siko gertode ne oɗon walla kala ko mbawɗon siko projet paala ɗon darnude kala ko mbawɗon wadde onon mbawi yaade to on coopérative banque ƴeftoɗon toon mbawa golliɗon ko golliɗon ɗon ko ta on jogoɗa hen hay interest bonde ne def réew mi mu nekk réewi liggéeykat te ku liggéey bi nga am te li nga am dina sakkan sa njaboot na sakkan su ko defee nañ taxawal compagnie boo xam ne dina la sampal ne ngay fay ndànkata ɗum woni kadi ɓeydi ƴefta leydi ndi ɓe mbaɗa ɗum leydi liggordi wona leydi ndi nganndiɗanta si woni jommum liggima heɓat si jommum heeɓi kala heɓat heen ko e ngol heɓgol ko heewi ɗum kadi wawi wallude yimɓe fo heen bonna loolu lañ leen jagleel systéme change pour dàq ñàkk ndóol ci suufi Gambie Luwani system can be vendido pasar entre leydi Gambia. So len sete sente ko be mugi lede. Ti alari ndel sade o hande dine nibi. Ndo hangi jafe. Ndiyam dine meji hebde. Lopitan jafe. Lobi eh luwan lobi dan kadi ala. Nurse school jafe. Nurse school kadi dum isati. Yon yangi bon. Labi di kadi mojjane. Juróom fukki at ak juróom benn. Lu tax façon dund bi Mom la Domi Gambie di dunda jógee quatre jógeeg jógeeg allo jógee kaatu jógee kaatum be koyna jogee carton be koyel luwaral ngendi dunde dundego mettiki si a laawi gambiya hannde e ɗi duuɓi capanɗe joyi e jeego ɗiɗi mburtan ɗi fof gambiya haa jooni ko nino wayi ni tan wayi ngimmoɗa carton jahaa ɗo haa koyna fof kono wayi ni tan wayi ɗum addi haa jooni enen e nde tampere nguurgu muna doon so weccewol dohalen sen de keyi dugeenaci cool ndax dohalen ndi fi nek moyne ɗe ngena fayi naamoyi yéen a ngi fay licence yéen a ngi fay duty nag yi ñu ngi fay ci ci naamu naamu yi ñu ko fay waaye soo leen fayee jël ñëpp yóbbu area council doo leen ko gisaat. woni kalam lamunga wangu wonde ɓayde ni jommum ceeñani no gollirta ni ha joni joom on wawɗa wadde ɗiɓolo kono ɗo ni enen dara goto kala ɗini yoɓa lembu aɗa goɗɗo kala ɗiɗin yoɓa lembu e on lembu kadi goɗɗo kala ɗiɗin yoɓa lansi walla goɗɗe e goɗɗe haa jolni e ɗum ko ñofta ko a yiyani hen nafaka muɗum haa ñun nag gu amul dépense dafa tas bon nag soo amee VDC te VDC bi amul arankees naka laa mun a isee yokkute ci dëkk bi ɗum woni mboyo galle kala mo ala dépense ɗinni yaha sakade ɗum woni kadi so woni a jogiima VDC on VDC ala arankees ko hono on wawata gollirde saare o moo tax ñu ne système change li ñoo isi mooy buñ jëlee réew mi mbooleem dëkk lemp bañ faa fay juuti yañ faa fay laysin yañ faa fay yep dafa tok ci caisse dëkk bi du demati area kay bi yo ci woni ke en jep ci len di nan kala jom mun ko wota ci ko len wooto yeɓde sigo lenku jottoni tan sigo lansin jottoni han kala ko mbowɗa yeɓde han si ma han kala do ko kaaleto koɓe ndemtindirata ɓe mbaɗa dum ko aran kes vdc mo don to su ko defee at mu nek vdc bi dina toog ak wa dëkk ñu seet ndax yoni lañ wara defal ndax l'hôpital bu ndaw lañ wara defal waa dëkk bi ñu jàngal leen pour ñu toppatoo ñi nga xam ne feebar nañ su fekkee ne nekk na feebar bu garaaw ambulance bi sori pour yóbbu ko ci lopitaan boo xam ne dina mën a faj ndax dañoo mën a pexe soo la nekk ci kër bu nekk ndax dañoo aussi boo xool ci seen naako yi toppatoo li nga xam ne mooy tens bi da nga xam ne dara du yàq naako yi ndax dañoo war a am football field toppatoo xale yi seen sports yi jëlal leen jersey lu nekk ba pare ñu tuddee seen boppa turi dëkk bi loo xam ne lii yokkute dëkk la di ngeen ko waxtaan ñu seet ñaata ci xaaliss la ɗum woni hitaande kala hitaande viidiji o jooɗodat e yimɓe saare ɓe ɓe ndaara on haalis gonɗo ɗo arankes maɓɓe ɗo ko hoɗum ɓe ngollirta ɗum siko laabi ɗi ɓe mbattata walla siko filɓe siko filɓe paala waɗde siko projet ndiyam ɓe paala addude kala jommune ko paala addude han rek hitaande si yoni han viidiji o jooɗodat e yimɓe saare ɓe ɓe ndaara ko hoɗum développement ɓe ngaddata e nder saare maɓɓe he su fekkee ne bi bu gën a doxal projet waaye nag xaalisam tollu fa léegi kees gu mag dañ cee sedd région yëpp ak municipality yëpp ɗum woni kadi on pdc woni siko projet faala wadde on projet haalat muɓe jogiiɗo wawa ɗum yonde ɓe njaha kees mawɗo to on kees mawɗo region kala region ɓeydi gokka heen wallu mumen seya ko on haalat muɓe gokka o ɓe ɓeyditirante mumen fii ɓe mbawa continde projet maɓɓe saare o so gis nañ ne am ngeen projet antalu leen ko dina jël ci keesi région bi yokk ko ndax projet boobu ñu mun koo doxal ngoni onon jogii projet mon o kadi bdc saare haaloɓe mo jogii ɗon o waawa ɗum darnude ɓe ƴeftat to arantes leydi to ɓe mbattana onon fi mbawon hempitade projet moɗon o bon nag juróom fukki at ak juróom su fekkee ne seen dëkk yi nii la doon doxee ndax dina mel nii tey woni di dubi chapande je e je ɗi fo no gonde tawi leydi ndi sikoni no hande no mbaɗen ni no gonirɗen ni e ngoni gonirtano no bana 2016 ko wakati suufi gambia la carte wote munuta ci president moy dekk bu nek dafa war a nekk ci ron nguur ɗum woni ɗo e 2016 kala mo dano da hande e gambia do ko ma mbiyannoma kol carte wa ittugol ɗo do president wonna e lady gambia ñu ne baadoola du mun a xeex ak góor ɗum woni jomata ngo sorry demowo wota habde e laamu fekk leen ki ngeen doon ɗum woni on wattu on nganndano ko hoɗum ngonɗon xamuleen leen ngeen moom ko ɗum addi on nganndani kadi ko hoɗum ngoɗɗon keneen moomala ko boppam ɗum woni goɗɗo woodani ɗum hoore mum ngeen ñàkk ko ɗum woni onon mbasɗon ɗum ko ka nekk ci ajana ci kaw suuf ɗum woni kala jommol wona e alijanna ɗo ɗo nder leydi yéen ngeen nekk ci jahanama ci kaw suuf onon gonon e jayngol e dow aduna ɗo kadi jibi ci coono ɗum woni jibinoɗa e tampere mage ci coono mawna e tampere ci coono mawnita e dee ci coono maya e tampere ci coono ɗum woni kadi ɓiɓɓe maɓe mawna e coono ɓen e tampere set ci coono ɓen kadi mburo e tampere dee ci coono ɓen kadi maya e tampere kadi wone 2016 ɗum woni ki ëppoon doole ñëpp ɗum woni ɓurnooɓe doole ɓe fof ëppoon alal ñëpp ɓurnooɓe jawdi ɓe fof ëppoon baat ñëpp ɓurnooɓe haala ɓe fof jël téléphone am ɓe ƴefti ji maɓɓe ɗi mo téléphone ko xam ne kenn xamu ko woon ci politique ɓe kooli ɗum mo nganndiranta hay gooto anndaa e one e politics ne ko jébbal naa la nguur gi ɓe mbiyi ɗum ɓe ngokkii ɗum leydi lu ko waral ko addi ɗum noon seen carte wati ko ɗum woni carte moɗon nde mu dem ba ci kanam mu ne du dem من خارلين فكيفنا جروم يت مبايا قولين دوبي تويري جنواري دواني اللولو جنواري سودمول سمويهي دفادل لنك ربل تريون دواني ولد ربل اللر ليديه ندح دمول مبايا يهاني ليك دمنا دواني ويهي اوات لولو لموني دواني قهدم هوليري موم فتل موكو تاجون تنغور ام fetel moo ko taajoon ci nguur ɗum woni ko fetel addunoɗum e leydi he mu doora isi wote mbo ɗum woni mbo addi wotogol léegi wote boobu ɗum woni on wote moo ko génnee ci nguur ɗum ɗum woni kanko itti ɗum e leydi bon doomi gambe bu nekk ɗum woni ɓiɗɗo leydi kala gonɗo ci second décembre 2016 second décembre 2016 sabu mi njam dagana sabu mi njam dagana ɗum woni ɓoggima e dow leydi ɗi taƴi kenn nekkaatul jàmmi kenn ci suufi Gambia. ɗum woni hay gooto wonaani jammo e ndeer leydi Gambia. benn xeet ëppul benn xeet doole. ɗum woni hay leñol ɓuraani leñol ɗo doole. benn nit ëppul benn nit doole. hay gooto ɓuraani ɗo goɗɗo doole. ku nekk benn carte wotel am. kala gonɗo ko kartal gooton jogiɗa. te duñ la ko jox ngir xeet. ɓe gokkiranima ɗum sagunde leñol billa ko ɗof ngir diine ɓe gokkiranima ɗum sagunde diinen billa ko ɗof ndi so gooriya ɓe gokkiranima ɗum sabu gorkoya maɗa billa ko ɗof so jigéen ya ɓe gokkirani ɗum sabu debboya maɗa ñugla ko ɗof ndi so doomi rewya koɓe gokkirima ɗum sabu ka ɓiɗɗo reeri bonna doomi gambiya nawlanani ɗum woni ɓiɗɗo leydi kam wande nag doole ɗi ɗum woni doole ɗe dañ ko wara denkane ɗum woni ndax loolu moy isi ɗohaniri rew ko addi systéme ceeño bon nag suma mujjantali kaddu ɗum woni ko woni to onon haalande ko na ngeen bàyyi xel ne ɗum woni ngajiɗon hakkillaaji four décembre ɗum woni garoo o amul kenn ku leen forcé ni ngeen war a wotee hay gooto forsaani onon mo goɗɗon wotoraade su la neexee nag si ma han doo wote ci dalil mbata wotaade e sagunde dalila da wote ci maate aɗa woto e maate man jox naa leen dalil mo kanko okki onon dalila soo kontaane ci dalil boobu so a weltima on dalila mo okki onon o da jël sa perbe da nga ma aɗa nde nga dugal ko ci suma kees gokkaa ɗum e eh, kees makko he moy ne d' accord nga woni a d' accord e dalila wande so wotewul ci dalil so a wotaaki kadi e dalila da wote ci maatay ɗum woni a wotat e maatay suñ la joxee saako maalo nga wote ya ɓe gokkima saako maalo mbotoɗa ñu jox la football nga wote ɓe gokkama balole mbotoɗa ñu jox la saako sukur nga wote ɓe gokkama saako sukar mbotoɗa luñ la jox rek nga wote kala ko ɓe mbawima okkude rek mbotoɗa so wote ci matey si a wotima e yiibi matey kadi nga am guuri matey a heɓat kadi laamu matey juróomi at duuɓi joyi ngay keɓetu rek aɗa waɗa traye rek marché bi seer na. marché waɗi nin seeri. bagage yi seer nañ. bagage yi di ceeri. ndox mi defe ndiyam metti heɓde. jigéen yaa ngi dee ci matu. rewɓe ɓe ɗiɗi maya e jibingol. lopitaan garab nekku fa. lopitaan ji to lekkele ngala. di keɓetu rek yeneen juróomi an haa jooni Allah waɗa soogul de e ɗi duuɓi ndax dañoy continuer noonu. kana alo haa jooni enen mbaawi continuer noon. tontuwu de. kana enen mbaawi continuer noon on jaabaaki de. bon nag suma mujjentali kaddu moy du woni ko watinto haalande onon ko sen karta wati du woni kartal moɗon ngal chaabi la ko chaabi de bunte la ko gal kala ñaari néeg la ko cuuɗi ɗiɗi de ben néeg bi moy kasso ndol la kaso notel la kasso reet ndula suudu ko ndun woni kasso de on kasso non ko metti do won don benen bunte bi moy néegi tedd néegi karanga néegi leer Nuda suudu non ko suudu jamde toon aɗa wawi toon walade aɗa wawi hebde ɗumɗa teddungal maɗa ngal e ɗum suudu for december for december so ne xenge ubi ubbi bi nga tëdd ci néegi tedda da faw ak sa ci weli ma han kadi da suudu to jam o wonto mbaaloɗa toon keɓanema ma o wala nga tëj sa bop ci kaso ndóol bi nga fa sa jobo tëj fa ay sa set da faw walla ala gudita nduɗa tudde ɗo ganndiran ta kaso maɗa o ko toon woni ane tan famille maɗa o fin guron e tampere ɗow e duuɓi joyi garoji ɗi lo def nak mugi melni mateyla pour def ko ɗum woni kala ko mbaɗɗa han ko yiɗi matey mbaɗirɗa ɗum man mbatta gulen mboyatimin wayno onon kadi sonen jele yoni tedde ɓe jon ƴeftima lawol ba ɗum woni jamgol man ma a ñimay jappale ɗum woni kañƴe ɓeɓe yimɓe nangganɓe ɗum ɓe ci juróomi at rek pour yore Gambie lu passé juróomi at ko duubi joye tan ɓe kaajoli ɗum ɓe kaajolaani ko yawde duubi joye dinañ tabax Gambie boo xam ne ñëpp dinañ e sagune mum ɗum e waade so leen jëlee yooni kaso ndóol gi son laawol kadi gonngol ngol ñu tàggoog yoon ɗum woni bonni wayno onon haa jooni ngeen continuer ci coono rek ɓe dee ci coono ɗum woni continue e tampere tan haa maayen e tampere kadi man ma dem ci leneen ci Afrique ci Gambie ak ci àddina bi loo xam ne dinaa yokk àddina lu dul taxaw élection kanjini yaha dabida ko tum aduna ya walla e afrique de ko man gandiranɗa ɗin wawi ɗum ɗon wallirna jërëlen jëf yo on jarama ah, on jarama ah. jërëgen jëf léegi ñu o ah, docteur Baye Birane Diagne mu am waxtaan bu gàtta ak yéen asalaamaaleykum ah dégg ngeen xalifa bi xalifa bi borom xam-xam bi leen wax. mboyo xalifa nji ko jooma gandal déedéet dama ne xalifa bi waxuma xalifa de xalifa bi borom xam-xam li mu wax ɗum waɗi ɗum waɗi fettugueɗa ko jooma gandal lamdi xalifa salla honorable xalifa salla mo wax ɗum woni honorable xalifa salla haali ɗum masere yokko ɗumono ɓari de te wax na yek ɗum woni ko ɓeydata hen ko hewande saabu on haali foof mannayi parti leader secti général pour all peoples party app ko kanko woni parti leader app so gisee ñoo bokka xalifa ɗum woni a yimbo arti ha tawdi halifa daf ñu doy daf ñu doy li mo li ñu def seen manifeste bi ak li ñu def suñ manifeste bi wu du bari ñu gis ne li mom nit dëgga la borom xam-xam la ku mandu la ci askan yi ko ñor mu am yërmande si si si askan bi mboyo halifa di men de halifa di men manifesto di moy di manifesto halifa o sertani ko ɗum addi haaɓe tawde dum te halifa kadi ko jooma kandal ko jooma kadɗo kadi non ko jooma do du koy wax waxe wahede ñeta fukki at ak juróom li moo wax di waa Gambia dañ feebar te ko daal feebar nañ nañ wecci def defin benn tey wecci wuñ ko mboɗa wona haali ko wona kaalowo haalkade kala ko ɗum si a laawi hen e ɗi duuɓi ɗiɗi mo woni e tan ha joni mo haalanta bañ ame indépendance légui tuwawina annen sen rew juróom ah, juróom at ak benn ak juróom benn ren dara wecci ko tubawi bawi mo fi nekk benn def ñu defar area council system boo xam ne pour am taxe pour taxe pour pour tax taxe naamo bi ñooy fay yëpp jamaa tubaab bi ñoo ñoo ñoo ko defaroon noonu gante loolu muy tekkuwut moo ko kan yowi kabinda keftel independent ɗi woni duuɓi capanɗe joyi e jeego ɗi fof hikka haa jooni kono wonirno ni tan woni tubakoɓe gaddani enen ɗo systéme ɗum woni ta ko en yoɓat lempuuji haa jooni ko on systéme wonɗo kono nak systéme change jotna systéme change systéme change systéme change system change oɗum woni o a system change system change ko ɗum woni cañgol ko hono laamu ɗum woniri ndu am na lu am fayda trop loolu mooy dëkk bi si xiif lañ dëkka li ñooy li ñooy dundee yëpp bitim laa lu tax mboyo o wattu leydi ndi ko eh, e a woni de ɗum ko mbuurirten ko fii kono leyɗeele janande ɗo immortani nguuri jamara waroon ne ñetti at bangeleen nguur gi Gambia waroon naa mun a ah, béy maalo béy dugub pay computer ak ak ak ak soble be nga xam ne dañ ko yónnee bitim réew loolu amut woni jawara kadi wattu heɓni leydi ndi o duuɓi tati ɗi fof gambe i wawno wonde ta ko ɗo remata kala ko ɓe mbawi remde han ta ɓe mbawa ɗum nettude ɗo ɗeɗo leyɗele kono ɗum wawani heɓade wa inchallah guri guri doy halifa sallah jutte rewmi am nañ pexe am nañ plan am nañ façon am nañ mun-mun boo xam ne ñetti at ci nguuri halifa gambie defar ceeb bi di ko yónnee bitim benn ceeb bu baaxul dafa ñëw si dëkk bi ɗum woni moyo halifa ɗum woni ƴefti leydi ndi hay ɗum fof ceeñoto sabu nde kala ko jiida ɗo tan halifa no wawi ɗum ceeñde kono no leydi ndi nafirte ango ceeñanat enen ɗo inchallah gannaaw loolu wax na affaire yi diw gi ñu ngi am saaro bi ñu ngi ko tëj fi ñoo diwee gerte fi ñoo defee diw si ah, ah, génne diwlin si gerte diw gi ñoo ñoo ñëw si réew mi baaxut feebar di ah, jibet bari na tension bari na feebar cancer mu ngee feeñ yooyu yëpp suñu lekk moo baaxut te lekk bi ñoo lekk jëriñ ko nga jógee bitim réew tax ko jëriñ see def ñun ko mboɗo si yawtitan kadi ko haalanta yimɓe mbo en jogiiɗo facturi o saaro fibo o enen fewnande diwlin o sabu enen ko ñamten ko ko waɗaake ko ɗum addi ñawji ɗi keewi den ko hamul rek way am nañu xam économie agricultural système bi fi tubaab yi moo fi nekk bentey gerte gi suñ ko biyee bentey ñun du ñëw suñ price de président jógee dëkki tubaab bi dinañ ko jëndee wala ngeen sànni ko bëgguñ ko kon nag loolu tam dañ ko wecci système change mboyo ha joni ko yimɓe tan goni ganduɗa hande koto so en gandi han systéme gonnoɗo dow mo tubakoɓe gacci o ha joni ko on wonɗo saabu price guerta ɗi kadi wona e junggo laamu e immorta koto leyɗele ɗo immorta ɓe mbiya ɗumen ko ɗum ɓe cottani ɓe mbawa ɗum sodde lenen lima yokka sibaji moy lu tax liggéey amul suñ pupay amul liggéey suñ amul liggéey suñ haale gori amul lu tax बोले तुम ता गोबे दा हेर का दिल्ली केंगल आले दी हे बाबा जी ने केंगल आले के सुका पेंगल आले के हाली केंगल आले दी हो तुम ता की juróom fukki ak ak ak juróom benn éducation système bi fi tubaab yi bàyyi moo fi nekk benn tey te système boobu pour not ñu la woon pour jàngal ñu ñoo ñu ñoo contrôler Ah, ben bi nga xam ne am si indépendance loolu moo fi nekk ben tey si alaari en haa jooni ɗi duuɓi capanɗe joyi e jeego nde keɓɗen jooni haa jooni ko on systéme o ɓe ngaccuno ɗo o sabu nde jandete ko ɗum addi en mbawani heɓde indépendel haa ɗo ɗo gonɗen ɗo ko taki ah, halifa sall ak ñim àndal si nguur ah, doy nañ def li ñoo wax nañ am ay li ñoo wax skill training centers foo xam ne soo jaalee école yoo xam li nga bëgg a nekk la fa dugal jàngala métier jàngala business di la fay pour nga jàng fa so ƴeyla jola interest fri loon jola business utkula tette ɓe nga xam ne dow daan sot business bi kon ɗo ɗemati tiɗi bakuwe du amati halifa ɗum woni to doy ɗum woni piijo a hettude mof keɓɓima laamuɗuma ɓe darnana oɗon skilsen gamo nanndiranta ɓe mbawan on ɓen jaɓaon kadi ta jommun si paɗi wawa yaade kala meccal ngal janngiɗo man wawa ɗum golirede dula goɗɗo si woni jommun ala doole han ɓe gokkanma loon ɗum woni to coopérative banque to mbawa gollande hoorema inchallah si allah jawi xalifa ñett fukki at ak juróom li may wax mu ngi wax benn tey te loolu mooy dëkka xalifa gis na feebar yi dëkka bi gis na feebar yi Gambia ñett fukki at si garaaw gis na ko benn tey loolu kenn witu kenn déglu ko wax tu jot na nag pour njokk njokk suñu kàttan njukkal ko ndik te dëkka bi tàkkut 2016 ndik moom ak yàlla wala ko ɗum tan haltanin ɗo nde kabilonati e politique o haalanno ko ha joni ko ɗum tan o haalantani yimɓe ɓe so a laari 2016 si fetel fellaanɗo nder leydi ɗan ko sabude halifa inchallah inchallah halifa plantini am a sigoɓe men tan feere am inchallah so soɓe yaala no gueɗe kadi si torohande ɓe nekka ɗum ko he rek min amdañ feere fi ñëw taawdi wa nden no def lii no def lii na def lii laaj len ko naka la ko defee xalifa wax na yëpp ba pare duma si duma ko banque waat jar pour banque waat ko mboyo si allah jaɓi haalifa feere peheji ɓe jogii ɗi pirɗintin loni mbaɗama ɗo impléne leydi he an ɗum wallal yimɓe ɓe kono yimɓe ngara mbiyama ɗo koni ga koni ko haali ko o rewtata koye ɗum kadi juróom fukki at ak juróom ɓen ngi feebar haalifa moom docteur bi man docteur laa dama faj ay nit ñett ah, ñetta fukki at ak juróom maa yaa liggéey naa gambia liggéey saudi yeɓmage faƴƴi lima faƴƴi hedna oppude jurom ben junne nit waye so jene rew comme haalifa jene rewmi muge faƴ million gambian loolu moo gen lima faƴ si si jena fukki atti ok mboyo ko halifa leydi ndi wayno wattu leydi ndi ini ko awani ko halifa woni docteur muɗuma kañon hoore mum ko docteurde golli julaji kewɗi e nder aduna he ɗo kono si woni ɓe politice jandi men ɗi koni mbayno halifa ni de a yiyat tawa no leydi ndi probléme on o waɗino sal halifa sallah muy courant muy maan muy sida dañ doylu nekkuñu parti pour feesal suñ poos yi su doon feesal suma poos la du ma ñëw maa ngi Angleterre dafa liggéey docteur courant docteur courant moom tam mu naa ko ni école am bi ngi am jolof tuutos xalifa ñëpp xam ne ko si àddina si su la feesal poosam rek la walaay bàyyi na Gambie liggéey feneen fàtte dëkk bi a do one can Honorable Halifa Salah, Alhaji Mamadi Kurang, and Honorable Sidi Ajadam, Woyoka, and Koyimbe Yondinobe. sabu ɓe ngaɗano ɗo fi wonde ma politique ɓe ko sabude tampere leydi ndi nattini ɗumen e politique hono ɗo wano kode mo ngol tagu ne yoni ah, nag yoni taranga la deme pour dëkk bi suñ ko sanni lut fay dem toppatoo ñu soxlaam jeexal na kon nag buñ nanguloon raw ni nañ ko nañ ko hôtel nañ ko hôtel sànni ko suñ carte bi dendu ko système change système change système change système change Um, njaaraama docteur uh, docteur ñu Youth for Change Assalamu alaikum. okay. I'll do something quick. Assalamu alaikum, Yarama Yuna. Uh, Mr. Alvin form. December 4th, 140. 140 day. Johnny Samakala Uhumi. Mena mempari de mi anda ay mena mempari. Empari. Students, are you ready? I don't hear you. Are you ready? It's time. Okay andi min kadi mi laamo wona ɗo woni laawol gotol e nani so bon IEC buñ defee lu ñoo def ñu tam dañ war a def lu ñu war a def léegi nag dañ war a def endorsement il faut we waɗi endorsement endorsement o yimɓe o endorsement yimɓe o haali goɗɗo haali yaaka yoro o heɓi kalis kasamba o heɓi oto ya kapate o heɓi palas kono sa heɓi kalis a heɓani feere a wa golle sa heɓi oto ha o ayeba a ngandal awa a wawa golle ana ɗum andi politics politics no wona yefi palas wona yefi palas de ɓuñe ñuttana Lenguara Tanako Hamne, number one, Ohevi Fere. Number two, Ohevi Ngandal. Wanadum. Safari Eleman Wanangandal. Safari Doctor Wanangandal. Safari Teacher Wanangandal. Kono Johnny President Wano. Wangandal Wanadum. Number three. Number three, Safari President Il Fore Heavy Yeremande. Anani. Kudutaki imena we Gambia Youth for Change on December 4th. And former Ari what me Johnny Katemao PDOIS Ali Basala and the Tampero Heavy Tampero Heavy Tampero. Eh, eh, ah, naga Utah yo hewani golle. Debo hewani golle.

ñun ñoo ko fa teg kan moo ko fa teg ñun ñoo ko fa kan loxo bu ko teg moo ko du noonu ñu ne njiit soo ko tegee foofu comme koral rek xam nga loolu noonu li nga def si gardin bi su yi ñëwee ngelaw bi ñëw ne fuuf mu dem loolu noonu noonu la bu liggéeyu te dañ ko Time mi tey jii ñëw na December fourth December fourth December fourth epepe epepe uh, jarama jarama on jarama jërëjëf honorable Sidia Jatta Mumfi, waye parce que guddi na ñu ngi am place yu bari fu ñu dem Well, you all, Honorable Celia Jata, no

bari ñantal do kuulala tombonna membe ɓe bankoɓe yaala ina fa kam en koyita ɗaɓɓude gollowo mo nganndiranta e wawi gollande enen leydi men ndi bo koɗole kal salama koɗo men yaalon ko anenta dow kumbi leytila nafa kam leni yaalon kamen fo ka ta kawo mu doko kuma yaron kafin mu ta ba malin ban kudu da albe ka to min faila akoto mu Allah ban ko ka dada Allah na faka ya fale ko albe kolo dun la keso ko no men siya ta ba ko kolo nyanta murra al le, ka ku kale men ba Allah balu nya ni nyandira wotu dun ka ta fawo koto mu walati bari alñankala kumol men fota jam aliye moyi aliye miila fana bote nuŋla na junta karta fay sansan kono wala baali makoyla kalum albe men kela kumol men ɓe fo kan jam walla baali makoyla aliyalum men ɓe kela katu ñiŋayitande allah ko muni atuna ɓankoɓe sayrin koma ayitande allah fana ata fero feero kemla ko ɓanko bondi o nyama. وكمولي ممن ناتجا نانتو كتا فسون الكلا بل نمو مو ناتجا من كتا ونيا فاك ما كنت فالي وتلو منك موتا ننتا ملا مويدا ولكن كمولي من فرجان بي والمجوران لتميا لونكو أبال ما كويلا كروتي نانو نادون كتا فاسنتان فضو البالون البمين كلا وممنتي sanji tallu نوور woro albe nyim bankun ka tan hanin kabi gambe ma kansudo hanin kabi gambe man ta nyato sudo adun kodo karbon de ku gambe ta nyato bal que ke gambe ta a fali bar ya banko ko ay fero sudo ay londo sudo adun abata be kunna to memba kenla ko ayo yelemandi ka to kuti banko kenla men ba kella ko follinkewol men ɓe banko keɓe ka ɗo prosoto wolɓe ƴeɓoto université science sanji saabu e man ɗo prosoto kala men ba kella ko wolɓe ɗo prosoto men ba kella ko banko fanana flotal ɗo kukan aɓe kala banko la yirwa ɓundata aɓe banko yirwandira mo labalu ñaawi fale wala kendi ko fana aɓe feero kala men yalon ko ɗo ku bundal ɓe noon la banko kan men yalon ko fondinkewol men yalon koye meccowol lon fondinkewol men yalon koye karanta

wallahi almaña naal dan almaña naal a dankulal fa surka katto faye woto ɗum ñina mo kumoti mbe yaalon ko al ñanda fula mbela jan bari mba fulale ko fondinkewol men ɓe jan a tellere ɗo komude katu banko ma telle tati banko mole niyetala tawro keme wo keme tawro wula anin fen o ɓe mo fondinkewlete bari wo fondinkewol le moti men yaalon koye ka karaye baka ɗo kuɗɗa sota o fandinkiwol le ka kalan i be kalan timmandino fenta ya kamma o fandinkiwol le mootu men ya lon ko banko la kuwo ñantata la wolle bulu wolle ñanta banko do kula bari nin kumanke men be ma koyla la ye fam parandi o banko do kula abe kala ma sibol wala a teli ala ñanta tewo sidla kaje haro til nano kuye kañum bankun kam men be kala banko bondira no manke do ta kala tele kuma kan alnin la alaɓata alabarka kumara sudiya kamma doron iko sibiti karte fay karte presidential candidate woro la keesoli le tarla honorable halifa sala system for system change a ala boxo bu ñin box a la boxo lo cloro bu ñinati sokola waran brown a ala natalo fana mbetar la je ala natalo ni mola natalo ma mulum ala keso ñin fana mbala ala taman sero be tarla je taman sero ñin wolum kiloti kilo moy naaj wo fanan be tarla boxo ñim bala albal hakkilotola kumen fananto wala mu carte kesoɓe ɗum naddamen wala mu box wo box o honorable halifa sallala box o huwoɓe tarla ƴe carte keso ñanta ɗumna huwo men koɗo naali allah keso ɗumɗi a ɗumta boxo o koɗo aɓe maala talanla aɓe kumala na kumata doron iteɓa moyla naya moy ɗoro roy salon koy la carte o ɗum ta box kono le konti kontila meli fanam be sirim banta woni fanan mba moylale le, salon ko ya ya ko ila carte o ɗum ta box tato kono le alkanatiu tata fanan alkana silan alkana piw alkana box a kerte keso ya box o kang, amandu huo kono ata kontila ni yalandi duma ata kontila karte keso naɓe kondila fay ɗum huwo kono ay dum ay jolon bokso kono mbaali tentula mbaali jayila gontanta bake gamirali hokkumo moyle ali gata gaño kachandi gaño fahamuyandi pour si system change soto siwtilum on the fourth jerjen jon jef ala barka ala barka